Veuillez abonner Kidara Division, la chaîne de nos valeurs, la meilleure chaîne en ligne, la chaîne qui nous rassemble. bismil ilaahi ci buur bi tudd Rahmaana laa ñaane Cheikh Bamba dend ak Abdourahman. bismil ilaahi Talebev. alimil xabir di ndaam ci màggaluk Serigne Dame Abdourahmane Lo tey di euh, dimanche euh, le 15 euh, septembre junni ak ñeent fukk ak benn ñu taxaw ak Serigne Abdou Fatah Mbacke moom Serigne Tako moom Alhaji Falilou Mbacke bu ko defee jox ko mu nuyu ak mbokk yi defee ñu laaj ko ay laaj yoo xam ne yu gàtt lay doon incha allah ci bisu màggal gi Serigne bi asalaamaaleykum wa rahmatullah ok jërëjëf Serigne Aliou ñu ngi lay fay nuyoo di rafetlu liggéeyu Daara Dji Vision di am mbégte ak ci teew gi ñu teewaat ci dëkk bu màgg bu sell bi di Ndaam Alimul Xabir ci ñaan lépp lu ñu fi def rek suñu borom fulal ñu ko ci barkeb borom bis bi ak suñu Tuubaa waaw koy jërëjëf sëriñ Abdou Fatah ci euh, nuyoo boobu xam naa laaj bi ñu dañuy daal di joñante ak moom rek ci lu gaaw euh, muy nan nga gisee taxawaayu sëriñ Daam Abdourahmane Lo ci biir kër Cheikhul Khadim mm-hmm. waaw euh, sëriñ laaj nga laaj bu am solo ndax boo ñu laajee ci jàmbaar ju mel ne Cheikh Ndaam Abdourahmane Lo sëriñ Daam Abdourahmane Lo loolu dinañ ci sawar a wax ndax dafa am taxawaay bu am solo bu mu taxaw ci biir kër Serigne Touba am liggéey bu am solo bu mu liggéey ci biir kër Serigne Touba kon loolu yaakaar naa tey bu ñu ñëwee ci dëkkam bii di ko fàttaliku boo ñu ci laajee dinañ sawar ndax sëriñ Dame moom royukaay la ci biir yoonu murit royukaay la ci biir yoonu murit ndax mën naa ne na dafa juddoo da dafa fekke lépp yoonu murit dafa fekki fondement yoonu murit yëpp yëpp yëpp yëpp da koo fette ba pare liggéeyal Serigne Touba bu am solo kon ñu ñëwee ci bisam li ñu war rek mooy taxawaay ci taxawaay bu am solo ndax fi mu féete woon Serigne Touba ku ne xam nañ ko ko ndax dañuy wax ne Serigne Touba dafa wax ne yittey kër kër kër Serigne Dame moo ko ko teggil ndax lam waroon a mën a taxawee ci njabootam fa mu a mën a féete ak njabootam muy ci taxawu leen ci seen wàllum njàngam alxuraan foofa Serigne Dame moo ko féete woon kon Serigne Dame Abdourahmane loolu jàmbaar la joo xam ne moom suñu borom rek moo ñu ko mën a fayal suñu borom moo ñu ko mën a fayal ndax liggéey na Seexul Xadim liggéey bu am solo waaw koy jërëjëf Serigne Abdoul Fatah comme noonu ko ko waxee mbokk yi ñi lay bàyyi xel ñu ngi koy teewlu ndeke noonu itam lañ mën a jàngate ci dundug Serigne Daam Abdourahmane loo bari na lool ndax mooy ki nga xamee ne itam ba ko Serigne Touba loo bëgg mu ko képp ko xam santul Mbàkke santul Buso suñ ko naree mbugal bo ëllëgee man Abdourahmane mbugal mom nañ ko mbugal ba njort na ne lol moy euh, ndigal li nga xam mo waru loolu mi nafila kamil bi ñaari rakka waaw muy euh, fukki rakk ak ñaar lañ wax ne mom la ko tàmbalee de moom yàgg ma koy def kamil bi yëpp ñaari rakk dem moom yag ma koy def kamil bi kon nit ko ne amel na ko njukkal képp kuy dox ci kaw suuf te yeewoo ci ëttub Serigne Touba rek amel nga Serigne dam njukkal moy li mam Cheikh iram Fall wax ne bu ñepp bu ñepp bu ñepp xàccoon te mok Abdou ñu des ci rek si ñu wéy di àtte abadan mm. waaye bu ñëpp jàppoon tamit te Abdou des rek boobaa sooxe mën naa am mm. loolu waxee kàddu si maam Cheikh Ibrahima Fall mm. te ku ne xam ne maam Cheikh ni mu demoon ci kër kër Serigne kon ba woon na xel Serigne Dame ak yitte cër bi ko Serigne Touba joxoon waaye nag ci sababu bopam la amé lim am ndax ndimbal li olof di wax na ndimbal da cee fekk loxol borom mom dafa dafa dafa sonnal Serigne Touba ba am li am kon Serigne dam dal moom wax deug yàlla dañuy dañuy ñaan rek yàlla suñu borom gën ñuko dolé fayal bu baaxa baaxa baax Serigne Aliou ak allahumma amin Serigne Abdoul Fatah kon bu ko defé dañuy wéyale liggéey bi inshallah taala indil len siyar yi nga xamé ne mom lañ defal ci bir kër kilifa yi lu ci melni ne kër Serigne Ousseynou Lo khalifa am Serigne Modou Lo dem demal nañ len fa kër Serigne Cheikh Lo xalifa fam Serigne Alhaji Lo Serigne Fadili Lo moom itam demal nañ leen fa kër Cheikh Mouhamadoul Moustapha Lo Serigne Bachirou Lo moom itam nekk xalifaam moom itam teewal nañ fa waa Daara Vision équipe Daara Vision teewal nañ leen fa kër itam Serigne Mahmoudan Lo Serigne Abdou Lo yi xalifa moom itam teewal nañ leen fa ak itam kër Serigne Abdou Sey Lo te itam Serigne Dame Abdourahmane Lo di xalifa ba moom itam incha allah taala équipe Daara Vision moom itam teewal nañ leen fa indil leen siyaar yi nga xam ne moo fa am ci cameraman bi Serigne Fadilou Sow fekk fekk goog Serigne Moustapha Samb incha allah taala ci kanam tuuti ñu ànd ak yéen incha allah Abandar lá